asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki juri di ñuy déglu bokki taalibe yi ñuy seetaan bu ngeen gisee jataay bi xam ne ndigal bàyyikoo na ci xalifa général di kullu murit sëriñ tubaa seex sidil muxtaar mbàkke ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ñëw ci sëriñ ahmadu mbàkke xalifab sëriñ moodu xari mbàkke pof di ak mboolem njabootu sëriñ moodu xari ci bis boobu nga xam ne ci la fàttaliku jàmbaar ju sell joojee nga xam ne kenn dootu ko fàtte ci taxawaay bu am solo ba mu taxawoon si Ahmad Bamba Xaadimu sol muy sëriñ Modou Xari Mbàkke Pof di muy màggal gi nga xam ne moom lañ koy amal at mu jot ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu di tombe ak fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2018 ñu di ko amale fii ci Daarul Xidma muy Touba Pof di daañu yëkkati kàddu gi nag jox ko sëriñ Jiili Mbàkke moom sëriñ Fallu mu wax ci turu yi bu noppee ñu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Modou Rokhaya mu woote ci turu gouvernement bi su noppee ñu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Jiiri Mbay Longoor mu woote ci turu sëti sëriñ Modou Xari Mbàkke Pof bi su noppee ñu jox sëriñ Moustapha Mbàkke mu wax ci turu bokk yi bu noppee ñu jox sëriñ Xari Mbàkke Pof bi mu wax ci turu sëriñ bi. maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di jiite ci nuyoo bi xalifa eh, kilifa jotaay bi sëñ Ahmadou Mbacke xalifa sëñ Modou Xari Mbacke Pofdy tey nag ñu teew fii ci Pofdy Daarul xet ma ci kanamu sëñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Xari nu lot lool nag ci wax waaye ñu jëfe ndigal rek kon nag ci ndigalul sëñ Ahmadou Mbacke xalifa sëñ Modou Xari Mbacke Pofdy ne mi ngi woo mboolem taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew fu taalibe nekk rek nee na bayu benn taalibe rawatina nag taalibe yi nga xam ne dañoo aju ci këri sëñ Modou Khary Mbacké Pofdy yi nee na fu ci taalibe mën a nekk góor ak jigéen mag ndaw lu sori sori ak lu jege jege nee mi ngi lay yëgal bis bi eh, bu loolu weesoo nag eh, nun danoo xaw a lot ci wax waaye nag ñi ngi koy yëgal bokki taalibe yi nga xamante ne bii yàlla dafa def nu aju ci nun di ci jiital nag su sama dëkk di njurul di dëkk bi sëñ Ibrahima Mbacke njurul fu taalibe mën a nekk ci biir Touba ak li ko wër te bokk njurul maa ngi li ko yëgal di ko yëgal it waa ngay taalibe bu fi nekk ñu ngi la ko yëgal di ko yëgal Ngeer di ko yëgal Kolobaan di ko yëgal waa Mbos di ko yëgal it waa Ñeer euh, Cissé di ko yëgal bokki taalibe yi dëkk Louga ak Ndakaaru ak fépp fu waay mën a nekk di taalibe ci kër gi ñu ngi la ko yëgal di ko yëgal it waa Njaxate ak fu taalibe mën a nekk rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla jullit yonent bi ñoo ngi sant Serigne Touba Xaadim Rasul tey nag ñu am mbégte teewaat fii di waagal bis bu rëy di bisu Serigne Mouhamadou Xadim Mbacke Pof di fii ci Touba Darou Khidma ci sunu kanamu kilifa Serigne Ahmadou Mbacke xalif Serigne Modou Xadim Mbacke ak mboolem njaboot gi ñëpp ñun nag day ñoo ñëw pour di woo bokk yi yi nga xam ne ñoo bokk réew mi. ci bisu sëñ Modou Khary Mbacké Bafdi bi di ci jiital nag président de la république monsieur Macky Sall di ko yëgal bis bi xam na bis bi ma sëriñ baa ngi ko ci woo baax ak soxnaam soxna Marième Faye Sall ñu ngi ko ci woo ci bis bi di ngi teg premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne sëriñ bi nee mi ngi koy yëgal bis bu baax a baax di ki teg ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye sëriñ bi mi ngi koy woo ci bis bi di ko yëgal bu baax a baax di ki teg na de Diourbel sëriñ bi mi ngi koy yëgal bis bi di ko ci woo bu baax baax mi ngi koy yëgal préfet bu Mbàkket sëriñ bi mi ngi koy yëgal bis bu baax di ci woo di ko yëgal sous bu Ndaam ñoo ngi koy yëgal bis bi sëriñ bi ne mi ngi ko ciy woo di ci woo meeru Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw di xaritu sëñ bi di wóolureem sëñ bi mi ngi koy yëgal bis bi mi ngi koy yëgal it maire bu Touba Abdou Lahad Ka sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal bis bi ndax moom da bokk mi ngi ko ci woo bu baax mu ngi woowat sëriñ Fallou Mbàkke président conseil régional département de Mbàkke sëriñ bi nee mi ngi ko ci woo bu baax ndax bis bi bisama mi ngi ko ci jégal bu baax a baax di ko ci woo Abdou Lahad Jaxate chef de village Touba sëriñ bi nee bis bi bisama mi ngi ko ci woo bu baax di ko yëgal ak mboolem chef de village yi nga xam ne moo aju ci moom sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi woo honorable député maître Madické Niang groupe parlementaire mi ngi ko yëgal bis bi mi ngi ko yëgal président Pape Diop bokk gis-gis sëriñ bi nee na ngi ko yëgal xaritam bu bi mi ngi koy yëgal honorable député Serigne Cheikh Mbacke Bara Doli bokk ci bis bi sëriñ bi ne mi ngi ko ci war di ko yëgal mi ngi koy yëgal Cheikh Abdou Mbacke gis-gis bokk ci kër gi sëriñ bi mi ngi koy yëgal bu baax a baax ñoo ngi woo sëriñ Moustapha Diop honorable député bu Touba sëriñ bi ne mi ngi koy yëgal bis bi. ñoo ngi ci yow soxna su Mbacke bu sëriñ Abdoulahi borom dër bi honorable député fii ki Touba sëriñ bi ne mi ngi koy woo bis bi di ko yëgal ndax moom ci la bokk moo ngi koy yëgal soxna Fatma Diop. honorable député bu Mbàkke ñoo ngi koy yëgal bis bi ñoo ngi koy yëgal soxna Kine Mbaye bu bokk gis-gis honorable député sëñ bi ne mi ngi koy yëgal bis bu baax ñoo ngi koy yëgal président Moustapha Silo honorable sëñ baa ngi bu baax di ko ci woo moo ngi koy yëgal honorable député Abdoulaye Seck Sadaga bu Touba sëriñ bi nee mi ngi koy woo ci bis bi di ko yëgal. ñoo ngi ñoo ngi yiwoo sunu xarit monsieur le maire bu Mbambilor honorable député Ndiagne Diop di sunu xarit di sunu wëlëre sëriñ bi nee mi ngi koy yëgal bis bu baax. ñoo ngi ci woo maire bu Kayar Ndiasse Ka di taalibe bu baax ci kër gi sëñ bi ngi ko yëgal baax suñu wëlëre honorable député di ko yëgal bis bi ñoo ngi ci woo mbooleem autorités yi nga xam ñoo war a région de Diourbel département Mbacké di leen bis bi te xam ne bis bi seen ngi ci woo ñëpp fàttewuñu kenn nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigal Sëriñ Sidi Maxtaar Mbacké xalifatul am lil muridin ak ci njëgalu sëriñ Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Modou Xari Mbacke Pofdy ak mboolem njabootuk sëriñ Modou Xari Mbacke Pofdy daairatu xidmatul xadim mi lëkkale njabootuk sëriñ Modou Xari Mbacke Pofdy muy sëriñ ak sadaat yi ñooy am mbégte di leen yëgal conférence bu ñuy amal ajjuma le 12 janvier 2018 euh, conférence bi nag ñu ngi ko darajaale sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbacke Xabaan te sëriñ Ibrahima Mbacke Xujja nekk ab xalifaam ñu tuddee ko sëñ Ahmadou Ndoumbé ngir fàtte ko ci ay jikkoom ak ay melakaanam jamono yi man jam gone man cee waxtaan wi nag ñu ngi jëm ci al alaaqatu bayna diin wa relation bi nga xam ne moo ci diine ak politique njàngat nuñ koy jàngate ci ci ci ci biir réew mi ak mboolem réew yi réew yi àddina bi conférence bi nag ku koy amal mooy sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen ak sëriñ Maxtaar Kebe ñu am mbégte nag di ci woo ñëpp bokk yëpp rawatina njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi ak njabootuk sëñ Abdou Jaddu Yooli ak mboolem njabootuk sëñ Ahmadou Faaja Mañang ak mboolem njabootuk sëñ Abdoulaye Diané ak mboolem njabootuk sëñ Ahmadou Diaw Faxa ñi ngi koy yëgal tamit mboolem njabootuk sëñ Daaru Asan Njaay ñi ngi koy yëgal bokk yëpp ak taaliba yi mboolem askanu Maam Maaram Mbàkke ak Mbusoobe ak taaliba yi kenn desul ñi ngi koy woo ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wàcc bis waxte di leen xaar conférence bi nag gannaaw bu ñu timis ba noppi ci lañ koy ci lañu tàmbali incha allahu taala ko ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auzu billahi min aseytaani bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Modou Khari Mbacke Pof di bu ngeen gisee jataay tey da ko miin xam ne daanañ ko def ci waxtu wi ci jamono ji jataay bi nag li ko waral mooy bis bu mag sunu bisu maam Serigne Modou Khari Mbacke Pof di ñu di ko fàttaliku ci ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu tolloog le 13 janvier 2018 di samedi sëriñ bi wax na mi ngi ci woo mbooleem taalibe yi ak bokk yi wax ne bokk yëpp ak kilifa yëpp bàyyiwu ci kenn ñi ngi woo ñëpp kër gu mën a doon tàmbale na ko ca bopp ba ci caat ma ñi ngi woo ñëpp njaboot sëriñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen di woo ah bi ci tegee itam mi ngi woo ñi nga xam ne ñoom la seqal kër gi ñoom woowu leen da leen di soññ mooy njaboot sëriñ Modu Xari gi nga xam ne moom ñoom la bokk liggéey bi ñooñu na ka ci jiitu mooy waa kër sëriñ Miftaax mi nga xamante ni soxna bu Dam moo doon seen moo doon seen bunt soxna Awaka ak sëriñ Sidina Ka ñooy ñi ko fi nekkal nee na ñooñu mi ngi leen di woo moo doon taaw sëñ Madu Xari di jëte gi itam sëriñ Ibrahima Njurul ci kilifteefu sëriñ Afia moom itam wax dëgg ñi ngi koy woo bu baax di ko soñ ci bis bi mu soñ ci soñe njaboot gi te xam ne amuñu lu dul bis bi di ci woo it waa kër sëriñ Amidoune Mbacke ci njiital sëriñ Modou Mbacke moom euh, sëriñ du muy xalife bi moom mi ngi koy woo bëgg ñu soññi taal bi yëpp ñu jàpp ci bu baax amuñu lu dul bis bi nañ ci góorgóorlu bu baax a baax di ci woo itam waa kër sëriñ Abdou Karim Mbacke ci sëriñ Xaadim Mbacke moom na soñ njabootam gépp ak taalibe yëpp na ñëpp génn jàpp bis bi xam ne amuñu lu dul moom sëriñ bi nee na mi ngi ci soññ ñëpp itam di ci soñ njabootu boppam gi njabootu sëñ Baara Mbàkke gi ci Moustapha Mbàkke mi nga xam ne mooy seen mag di jiite leen ak ay rakkam ñëpp mu ngi leen ciy woo ñoom it ñu góorgóorlu te xam ne bis bi seen bise ñu ji bu baax a baax kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la seqal ci wàllu góor ñi ñi nga ne ñooy suñuy bàjjan seen doom yi fi ne ñoo ñoom ñoo bokk bis bi nii ñu ko war a wootee ni lañ ko war a wootee moo tax xaajalewuñ ci dara ñoo moom ñoo ko bokk ka ci jiitu sëriñ Alaaji Mbàkke moom soxna bu sa daam mi taaw sëñ Modu Xari bu jigéen moom ñu ngi koy woo ak njabootam gépp te xam ne bis bi seen bisa bi ci tegee itam ñi ngi woo itam soxna waa njaboot soxna taahiratu ci njiital sëriñ Ahmadou Muxtaar Mbakke moom sëriñ Abdoulaye borom dër bi moom ñu koy woo bu baax te xam ne bis bi bisama sëriñ bi nee na mi ngi koy ànd ak yow woo di la ci ak sëriñ Modou Mamoun Mbakke moom sëriñ Abdoulaye sa rak moom ñu ngi ko ciy woo di ci woo soxna maam Asta moom sëriñ Abdoulaye borom dër bi ñu ngi ko ciy woo ñoom ñëpp nañ xam ne amuñu loolu bis bi sëriñ Modou Xëri ñu boole bis bii bis ñëpp la ku ne war nga cee gis sa bopp te sëriñ Modou Xëri ku ne bëgg ngaa bokk ak moom war ngaa mën a eh, feeñal cër bi nga bokk moom kon doonul lu ñuy nëbb du luy woyof kon na ci ku ne gis boppam te jàpp ne eh, taxawaay bi mu war a taxaw bu mag lay doon kon ñu ngi leen ñu ngi leen ci woo bu baax a baax li ci wooy soxna eh, njabootu soxna Ami Mbàkke mu sëñ Modou Khari soxna Faati Mbàkke mii doomam bu jigéen moom ñu ngi koy woo moom ak njaboot gi mu àndal gépp waa ko Ami ak waa ko soxna Maam Faati ci njiital soxna Soda Ndiaye moom it ñu ngi koy woo mu soñ njaboot gépp ak ña ca bokk ñëpp itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi woo itam njabootu sëñ njabootu sëñ sët sëñ Modou Khary yu jigéen yi ñoom itam ci kër yi ka ci jiitu soxna Lootu Mbàkke moo ci mag moom sëñ Baara ñu ngi koy woo mu woo waa ak daayira yi mu daa àndal yëpp sëriñ bi neen mi ngi leen di soññ ak waa Bayda ñoom ñëpp nañ ànd ñëw te jàpp ci nañ daa jàppee ci bis bi mu rafet ak soxna maa aw Mbàkke moom sëñ Ibra Njurul moom itam sëñ bi nee na ñu ngi koy soññ moo ki rakkam njaboot sëñ Modou sëñ Ibra Njurul gu jigéen gépp ñu ngi leen ci woo te xam ne bis bi seen bis nañ ci góorgóorlu bu baax a baax di ci woo itam njaboot yi nga xamante nii ñëpp ñoo bokk ci bis bi ñu ngi leen woo ku ci la nga ci war a def nga def ko la nga ci daal di nga def ko sëriñ bi nee na bayiwul kenn yaatal na ci ñëpp daal na ci ku ne dugal loo xam te gis ci boppam ñu ngi woo itam dëkk yi nga xamante ne nii ñoo dëkkandoo suñuy dëkkandoo ñoo dëkk ñoom ci tund wii ñooñu ñee ci jëkk mooy njurul gi nga xam ne mooy dëkkub suñu madu xari ndax dama daa wax ne pof di ba fi sëñ Modou Khari di nekk sëñ bi fi sëñ bi ne pof di moo doonoon dëkk bi njurul moo doonoon tool yi jëwriñ yëpp daara yi pof njurul lañ nekkoon kon njurul ak pof di mooy benn la pof mooy dëkk bi njurul moo doonoon tool yi kon loolu yi dem ñu ngi koy fàttali bu baax di woowaa njurul nañ ñëw taxaw ci nañ war a taxawee ndax bis bi seen bisa di ci déggee waa Dar Rahman gii nga xam ne ñoom lañ dendal ñoom ñu ngi leen ci woo ñu suñu dëkkandoo yu baax lu ñu ànd ñu ànd ci ak ñoom ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp di leen ci yaakaar di leen ci tàllal seen loxo pour ñoom ñëpp ku ne ñëw bokk ci di woo Kër kàbb ñoom itam suñu dëkkandoo lañ suñu wëllëre lañ suñu lépp lañ seeni i bàyyi la woon ak suñu bàyyi ñoom it ñu ngi leen ciy woo ñu ngi woo waa itam suñu dëkkandoo lañ ñoom it ñu ngi leen ci woo bu baax a baax ndaxte ñoom eh, luñ ñoom it luñ jàpp rek jàpp nañ ci kon ñun suñu dëkkandoo ñoom it ñu ngi leen ciy woo di woo waa Ndokk di woo waa Busra di woo waa Bumbali di woo waa Bakkuna bàyyiwuñ kenn sëriñ Alaaji Mbàkke ak njaboot ga fa nekk gépp nga xam ne mag lañ di suñuy kilifa ñoom ñu ngi leen di woo ci bis bi seen bisa seen bisu maama di woo waa Madina gii bu sëñ Mbàkke Madina moom itam ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp dégg nga di woo itam waa bobi bu sëñ euh, euh, waa bobi gii nga xam ne moom moom lañ dendal du suñuy bokk du suñu lépp ñoom ñu ngi leen ci woo bis bi seen bisa ak waa daaru nayim ak taysir guy gu se gu Cheikh Baara Mati lay moom ñu ngi koy woo di ci woowaay li Cheikh Baara mi nga xam ne moom itam suñu wëlal di suñu dëkkandoo te lu ñu jàpp mu jàpp ci moom ñu ngi koy woo ci bis bi bu baax di ci woo waa Bayda ak waa Taïf waxoon naa ko léegi waa Bayda ak waa Taïf suñuy bokk lañ suñuy dëkkandoo lañ ñuy wax son loote mu soñ ña fa ne ne ñoo fa nekk ak daayira ya nga xam ne ñoo daa jàpp ci liggéey bi ñoom it ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ñu ngi damaa wax euh, sëñ Moodu moom mooy taawam bu jigéen moom ñu ngi koy woo ak njaboot sëñ Amidun gu gépp gu jigéen gi ñoom it ñu am positif lañ te am taxawaay ñoom it ñu leen soññ bu baax di ci gën a encouragé ñu gën cee jàpp bu baax a baax ndax amuñu lu dul seen maam sëñ Ahmad dafa wax ne bis bii ñi mu ko bokkal soo ñu leen ci day ko bokk ñoom li ko ci war moo leen ci war kon na nag ñëpp góorgóorlu bu baax a baax te xam ne bis ku ko am da nga koy fonk ku am lu toll ne sëñ Modou Khary Mbacké di koo xam ne jàmbaar lislaam la di taalibe Seexul Xadim boo xam ne mbokkam la di léppam na ñëpp jàpp ku ko am na ko fonk te te te yëkkati ko te xam ne amuñu cër bu ko gën a kawe sëriñ bi nag képp ku ko daa lebal ku daa lebal bëgg na nga fay si ko ci bis bii ku mës lebal bëgg na nga lebal ko ci bis bii ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xamal ne itam ndax nit moom amul lu dul bisam dégg ko bi ci tegee itam waa sëñ Mourou Ajara yi dama koy wax ñoom boo gisee duñu leen woo dañoo bokk ñoom bis bi ñoo bokk ñoom bis bi Baye Mourou Ajara moom sëñ Mourou Ajara mooy mooy sëñ Mourou Xari ñoo bokk maam maam Aramin Badi kon ñoom ñoo bokk bi te ñuy bokk yu neex a bokkal itam bokk yoo xam ne loo loo leen wax ñoo la cay jiitu kon ñu ngi leen di woo ci njiital sëriñ fàllu Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa ga eh, mooy seen xalifa ak sëriñ Fallou Ajara ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër googu bàyyiwuñ ci kenn bay wuñ fenn bay bàyyiwuñ ñan góor ñi ak jigéen ñi dañ xam ne daal ñoom dañoo bokk ci bis bi mënoon nañ leen bañ a woo sax ndax ñoom dañoo bokk ci bis bi bo waa kër ñang yi comme ni nga ko waxee ak waa kër sëñ ma jow paxa yi mbay ak ñëpp rek ku ci bokkoon ñëpp daal ñi nga ne mas nañ leen a tuddee conférence yi itam ak bokk rek lañ ci jublu ak tàll leen loxo bokk ak jokkoo jubluwuñ ci leneen kon nag loolu yi ñuy jublu nañ ñëpp xam ne loolu rek lañ ci jublu lu baax ak yaatal ak bokkoo rek lañ ci jublu ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi min asheytaan rajim <clears throat> bismillahi rahmaani mbokki jullit yi ñu leen di nuyu ci ndigalu sëñ Ahmadou Mbàkke xalifa sëñ Modou Xari Mbàkke mi ñu ngi leen di sant ci turam mu ngi jiital nuyoo bi nag ak cant gi lépp sëñ Sidi Muxtaar xalifa sëñ Murid te di ko ñaan mu yàgg fi loolu te nee dem si nee ak suñ si xam nee na lii nga xamee ne njaboot gi wax nañ ko daanaka doy na mooy lépp liñ fi wax mooy leen ko waxloo ñii ñu ñii ñu nii ñu wootee itam lépp mooy leen ko wooteloo loolu mooy mooy bis bi nga xamee ne amul dul moom mooy li ko mooy li ko gën a ñor mooy li nga xamee ne at mu jot ci lay nekk loolee la bëgg a wootewaat di leen ko fàttali te bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ànd ceeg moom bëgg képp koo xamee ni da nga koy lebal nga lebal ko ci bis bi képp koo xamee ni danga koy fay nga fay ko ci bis bi amul lu dul bis bi bis bi itam jaral la ko lu nekk képp ku ne tamit bëgg na nag ngeen ñu ànd ko bis bi su ko defee lépp lu ci yiw ngeen ànd màng ko mu ne nag mi woon mbokk yëpp itam rawatina nag waa kër sëñ Mandoumbe ñi nga xamee ne ñoo bokk si sayar ba noppi léegi ñu wañu ko kër sayar ba noppi ñu wañu ko tudd leen bis bi si turu ci njiitul si Ibra Xuja muy mbokk moo xamee ni mu am yëg la mu am yitte la ku baax la keroog ba nga xamee ni sëñ Moustapha ñoom ñi dem nañ fa bañ demee wax dëgg yàlla yitte ju mat sëkkale leen woon won leen ni sawar na ci lool bég ci lool ngir ngir dund lu mbokk kon nag léegi nee ko ñu koy ñu koy ñu ko ci sant bi nee na yëg na la la mu njaboot ga nee tam bég na ci lool mi ngi koy tàllal loxo tam nag mu ngi koy ñu ko doon tàllal loxo mboolem ñëpp ñoo xamee ni ñoom la bokkal maaram rek ñëpp la ci woo képp koo xamee ni man koo daal nga ñëw ci yéen taalibe itam nii li seen jiili wax lépp moo ko wax bokk itam lii sëñ Moustapha wax lépp moo ko wax c'est-à-dire lii jiili jiili mbay wax lépp moo ko wax lii nga ne suñ moto roqee wax itam ne lépp moo ko wax kon daanaka ñooñ bi ñu waxee rek man daanaka jërul may wax kon nag léegi mi ngi ñaan rek képp koo ñëw na fa yàlla na yàlla fa sa yàlla na yàlla def defal la xéewal yitte joo fa indi yàlla na faju jàngoro joo fa indi itam yàlla na faju lépp loo xamee maanaam léegi lu waaye du yóotu boo fa ñëwee yàlla na ci jot lépp luy yoot waa itam bu ñu yàlla la mooy yàlla moom la jot mukk ci barke Sëñ Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu di bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Serigne Modou xari Mbacké pof di xam ngeen ne nag képp koo xam ne daara la yare ak fu mën a yare daara ci Touba ak Njaareem ak mbooleem daaray kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo toogee jataay Serigne Modou Khary mi ngi leen di soññ ci njàngum alxuraan mi ndax ku xamoon Serigne Modou Khary xamoon nga ko alxuraan kon képp koo xam ne di nga woote bi rek soññ nañ la ci alxuraan ji waaye di ko yëgalit ni ko waxee ci njëlbeen gi ñi nga xamante ni bi ñooy bokk yi ndax sëñ Modou Khari kenn ku nekk xamoon ni meloon ci bokk gi ak ni mu ko doon jokkee am na conférence bu am solo nag boo xam ne bu ñu nee suba la màggal gi doon ajjuma tolloog fukki fan ak ñaar ci weeru janvier danañ fi amal conférence bu am solo ñu tuddee ko sëñ Mandumbe Xabbaan koo xamoon sëñ Mandumbe xamoon nga sëñ Modou Khari seen diggante bu rafet boobee ak Serigne Touba Cheikh Mat Bamba loolee la sëñ Ahmadou Mbacke xam tax mu jëlaat conférence bi tuddee ko sëñ Ahmadou Mbacke sëriñ Ibra Xuuja mi nga xam ne moo toogee ab jataayam ñu ngi ko ci soññ di soññ njaboot gépp ajjuma nag ginnaaw bu ñu julee timis ci la ñuy tàmbali conférence bi sëriñ Seexuna Buso Cumbuleen mooy def waxtaan ak sëriñ Maxtaar Kebe moom sëriñ Saaliwu ginnaaw bu nu xëyee nag ci samedi bi daanu yendoo jàngat alxuraan ci bëccëgu màggal gi def ay bernde ginnaaw bu ñu julee tisbaar ginnaaw bu ñu julee timis nag daanu amal cérémonie officielle bu am solo ñu ko yëgal mbooleem autorités yi di leen soññi képp koo xam ne rek dégg nga woote bi na nga jullee si timis ci autorité yi na nga jullee si timis pof di ndax ginnaaw bu ñu jullee timis ci la ñuy tàmbali cérémonie officielle bi kon képp koo xam ne bëgg naa fekke cérémonie officielle bi na jullee si timis pof di fu ñu cérémonie timis nag daanu tàmbali li nga xamante ne bi mooy cérémonie officielle bi ñi ngi yëgal nag mbooleem presse bi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew bésub sëriñ Modou Xëre ngoog nu ci waay feeñe rek sëriñ Modou Xëri feeñe ko say mbir kon bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn woote baa ngi noonu samedi ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2018 ca Daarul Xidma dëkku Serigne Modou Khary Mbacké Pofdy bu ko kenn wuute